À ce jour, 2310 cas ont été déclarés positifs, dont 890 guéris, 25 décédés et donc 1394 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Assalamu